asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar ci ndigalul am Amsatu Mbàkke moom sëriñ Abdou Lahad moo ñu joxoon ndigal ñi jotal kàddu cant yi ak ngërëm ci ñëpp ñi nga xam ne jàppale woon nañ ko ci liggéey bi nga xam ne ci lañ cant gi ngërëm ne mi ngi ciy jiital Serigne Mountakha xalif général des Mourides di ko ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ko wér ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp waaye di ci tegit Serigne Sidi Mbacké moom Serigne Abdou mi nga xam ne moom mooy léppam yëkkati woon liggéey bi tegoon ko ci loxoom mu ne moom lay jiital ci cant gi mi ngi koy sant bu wér di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ndax moom mënu koo fay ci taxawaay bi nga xam ne ni euh, am na ko ci moom. ak kóolite gi ba tax mu yëkkati liggéey bu toll nii teg ko ci loxo mooy mu def ko mbirum boppam moo xam ne nii euh, bis la boo euh, liggéey la boo xam ne képp ku ci ku ci ñëw wala jàpp ci rek xam na ne jàpp ko ndax day yëfi boppam yoo xam ne nii maanaam <coughs> ngi ciy sant ñëpp ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci. ci cant gi noonu mu ci jiital ku mel ne Serigne Moustapha moom sëñ Abdou Lahad nga xam ne moom magam la euh, kilifaam la waaye teewul dafa bàyyi léppam ànd ko njabootam ak ay taalibeem. ànd ak ku mel sëriñ Modou doomam ak sëriñ ab laata sëriñ euh, Abo ak mbooleem njab sëriñ Jiileeg ñu mbooleem njabootam gi yëpp ak taalibe yi kenn desul ñu ñëw taxaw ci liggéey bi taxawin wu rafet muñ koy sant cant koo xam ne am na tàmbali waaye amul fu mu yem ci noonu mi ngi santit sëñ Seex ubbi moom sëriñ Fàllu moom bi nga xam ne ku ne xam na ne moom at mu ne nit bu bu yàgg ba léegi at mu ne dana ñëw teew ci liggéey bi ànd kook moom taxawoo ko ci ñu koy sant bu baax di sant it xaritu boppam ku mel ne sëriñ bu Mbàkke mu si Fàllu ak sëriñ Sidi mu sëñ Abdou muy ñaar ñoo xam ne saa bu nekk bañ tàmbalee liggéey ba léegi lu muy dugg lu ne ñu ngi ci ànd ak moom ba ba ànd ko moom ca tàmbali ba ba ca jeexintal ba eh, mi ngi leen di sant bu baax ñoom itam ci seen taxawaay di sant it sëriñ euh, Seexuna mu sëñ Abdou Lahat xam na ne sax moom ren jii dafa amoon ñoom moom dañ ko joxoon liggéey yëpp ba taxoon mu woyefal ko ci waaye teewul njaboot ga teew ñëpp ànd nañ ak ak ak taalibe yi teew ci liggéey ba taxawu ko bu baax bañ moom xam na ne daal def nañ ko seen mbirum bopp ci loolu njaboot ga ña fa teewoon bokk na ci ku mel Saaliw moom sëriñ Seexuna sëriñ Jili ak sëriñ euh, Sidi ak sëriñ Seex Baba ñoom yëpp teew nañ fi ak mboolem taalibe sëriñ Seexuna yëpp ànd ak ñoom ci liggéey bi ci noonu mi ngi sant bu baax sëriñ Seex Mbàkke Lagan moom sëriñ Abdou Lahat teew na fa njaboot gi yëpp sëriñ Mahmoud at moom sëriñ Abdou Lahad mi ngi koy sant bu baax moom itam di sant sëriñ Mamoun moom sëriñ Abdou sëriñ Abo Mbacke moom sëriñ Abdou sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Lahad sëriñ Baara Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad ñëpp teew nañ ci liggéey bi waaye nag mi ngi beral it ak cant sëriñ Abdou Lakaram Mbacke moom ak mboolem waa Kajoor ñi mu àndaloon ci liggéey bi yëpp moom liggéey bi moom mooy jëwriñ ji ku ne xam ne taxawaay bi nga xam ne am na ko ci mi ngi koy sant sant koo xam ne moom it am na tàmbali amul fu mu yem mi ngi sant sëriñ Abdou Khoudous Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad ci taxawaayam di sant xaritam di sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Suwaybu moom it teew na fa taxaw am fa taxawaay bu rafet moom itam ci noonu mi ngi sant sëriñ Xamsatu Mbàkke moom sëriñ Suwaybu moom it yónnee na fa ànd naag moom bis bi yëpp eh, liggéey bi yëpp <coughs> mu ngi sant sëriñ Seexul Xadim moom sëriñ Abdou Lahad sëriñ Xaadimul Maahi ñu teew nañ fa ci noonu muy sant sëriñ Saliou euh, sëriñ Abdou Lahad moom sëñ Saliou Mbackeem sëñ Abdou Lahad muy sëñ Saliou jurul moom it taxawaay bi bàyyam daan am ci liggéey bi yëpp taxawee na ko moom mi ngi koy sant di ko di ko gërëm bu baax ci taxawaay boobu mi ngi sant sëriñ Moxtaar Mbackeem moom sëñ Abdou Lahad moom it ñëw na fa teew na ci liggéey taxaw na ci am na ci taxawaay bu rafet ci noonu mi ngi sant sëñ Abdou Lahad Mbackeem moom sëñ Moustapha Bassirou moom it ñëw na dam laan defee ànd ak njabootam yëpp euh, teewoon na ci liggéey ba mi ngi santit mag yi boppam di soxna May Mbacke moom sëñ Abdou Lahad moom it ñëw na ànd ko yëpp ku ci mel ànd ak ku mel ne Jaxate xam naa mu teewaaleel waa Jaxate yëpp. Hmm. ak Serigne Abo Jaxate ak mboolem njaboot gi yëpp ñu teewoon na ci liggéey ba. mi ngi sant soxna Ndeye Amy Mbacké moom it teewoon na ci liggéey ba moom sëñ Abdou Lahad ci noonu mi ngi sant euh, Serigne soxna Bali Mbacké moom sëñ Mountakha moom it saa bu nekk at mu ne dana ci am taxawaay bu bu bu rafet dana ñëw dana yónnee mi ngi koy sant bu baax xam ne sax jotoo ma yëgoo waaye saa bu nekk dana bàyyi léppam ñu ànd ak moom ci liggéey bi ba ba ba ni mu ba ni muy noppee mu ngi sant soxna ma Awa Mbacke moom sëñ Fallou moom it amoon ci taxawaay bu rafet ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ñu ngi sant soxna Astou Mbacke moom soxna Bally Mbène moom soxna May moom it yónnee na fa eh, ci ci ci liggéey ba taxaw na ci taxawaay bu rafet moom itam ci noonu ñu ngi sant it jëwriñ fa teewal ku ci mel ne sëñ Abdoulaye Mbacke jaaxal ak mboolem waa jaaxal yëpp teewul na ci liggéey ba. sëriñ Mbacke Penda moom it teewoon na fa ak mboolem waa këram ñu ngi koy sant bu baax di sant sëñ Amar Diagne bu Diagne ak mboolem ñëpp àndaloon ci liggéey bi yëpp ñu ngi sant it sëriñ Isaaxa Mbacke moom sëñ Moussa am sëñ Basiru moom it am na fa taxawaay bu rafet ñu ngi sant sëñ Mamoun Sarr euh, sëñ Ibrahima saar sëñ Abdoulaye saar ak mboolem waa waa waa waa Sareen yëpp ñu ngi leen sant bu baax ci seen taxawaay at mu ñëpp dana ñëw ànd ak ñun ci liggéey bi mi ngi sant it sëriñ Saliou Touré waa waa këram yëpp ñu ngi leen sant. ci jiital sëñ Xaadim Touré ak sëñ Seexuna Touré ñoom it ñëw nañ ànd ak moom liggéey boobu jeex ci noonu mi ngi sant it sëñ euh, sëñ Modou Touré ak waa kër sëñ Aliou Touré yëpp ñoom it teew nañ ci liggéey bi mi ngi sant it sëñ Seex Diop ak waa këram ñoom it ñëw nañ ci ta am nañ ci taxawaay bu bu rafet mi ngi sant it sëñ Sultan Diaw ak mboolem waa kër sëñ euh, sëñ Modou Diaw Paxa ñëpp it am euh, nañ ñëw ci liggéey bi ànd koog moom ci noonu mi ngi sant. sama mbokki Baye Fall yi jiital ku mel ne Serigne Fall moom euh, moom Serigne Aliou Fall moom teew na ak ak ak ak mbooloom liggéey ci liggéey bi. mu ngi sant bu baax sëriñ Mourtala am Serigne Serigne Abdou moom it ñëw na am ci taxawaay bu rafet ak it Serigne Cheikh Khadim Fall moom mi ngi koy sant bu baax ak sëñ Gounda moom sëñ Bassirou Fall alxuraan ak mboolem ñu mu àndaloon. ci noonu mi ngi sant Serigne Khadim Diouf Lambaye moom ak waa Lambaye yëpp di sant it Serigne Goro Badiane ak waa waa Badiane ñoom ñëpp ñëw nañ. teew ànd ak moom ci liggéey bi mi ngi sant sëñ Fallou Gueye bu gan ak ñi mu àndaloon ci liggéey bi ñëpp ci noonu ñi ngi sant waa Badar yëpp ci jiital sëñ Cheikhouna Gueye Badar mi ngi sant sëñ Fallou Bousso di sëñ Alaaj Bousso moom it ñëw na teew na fa ànd ak ak njabootam ci noonu ñi ngi sant it soppee sëñ Abdoulaye ci njiital Sidou Ndoye ak ñi mu àndaloon ñëpp gis nañ taxawaay bi nga xam ne amoon nañ ko ci wàññi taxawaay bu rafet mi ngi sant Ndongo Kebe moom it yónnee na fa ak njabootam am nañ ci taxawaay bu ñu fa taxaw ci noonu mi ngi sant sëñ Modou Guèye moom surtout sëñ Adama Guèye ak mboolem waa kër sëñ Adama Guèye yëpp mu ngi leen di sant bu baax ci liggéey ci taxawaay bi di sant sëñ Mahamadan Silla sëñ Niis Touré ak sëñ Daouda Sène ñoom ñëpp am na taxawaay bu ñu am ci liggéey bi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant sëñ Mbay Touré ak sëñ Lamine Touré ak sëriñ Dieng ñoom it ñu ngi leen sant bu baax ñu ngi sant it monsieur le maire euh, Abdou Lahad Ka mu di meeru Touba moom it ñëw na fa ànd ñun liggéey bi ba mu jeex ci noonu ñu ngi santit euh, sëñ Dame Gaye di meeru Kaabu Gaye ñëw na ci liggéey bi ci noonu ñu ngi santit euh, euh, président transporteur yi di sëñ Ilika gis nañ seen taxawaay ñoom it ñu ngi santit waa hydraulique tàmbale ko seen jiit ba ci ñëpp ñu ngi leen sant ci seen taxawaay ci noonu ñu ngi sant waa Eaux et Forêts ñoom it am nañ taxawaay boo xam ne at yi yëpp ñu ngi koy ànd ak ñun ñu ngi leen sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci liggéey bi bu baax a baax ñu ngi santit monsieur le préfet bu Mbàkke moom it ñu ngi koy sant bu baax ci jàppale gi ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ci liggéey bi ci noonu ñi ngi sant waa police nationale ak euh, gendarmerie bi ñu ngi leen di sant bu baax rawatina gendarmerie bu Taïf ak bu Colobane ndax jàpp nañ ci liggéey bu baax a baax yëg nañ ko ñi ngi sant waa Touba te ñoom it ñëw nañ ci liggéey bi ànd koog ñun comme ni ma ko waxee woon rek ci sëñ sëñ Abibou sëñ lu sëñ am sa di dugg dana ci ànd ak moom ci tàmbali ba ci ba ci jeexal mi ngi koy sant bu baax ci taxawaayam ak waa Touba ca kanam yëpp ñi ngi sant waa Kër Docteur ndax ñoom it ñëwoon nañ teew ci liggéey ba waaw ñu ngi sant bu baax it euh, daayira bi ñuy wax soldaaru euh, soldaaru sëñ Seexuna ñoom it am na taxawaay boo xam ne taxaw nañ ko ci liggéey bi rawatina ci waañ ma ñu ngi leen ci sant bu baax àndoon ko waa euh, waa kër sëñ Amsa yi ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax muy ci taalibe yeeg soxna yi ak doom yi ñëpp ci njiital sëñ Seexuna ba ak i rakkam ak soxna yi yëpp ñu ngi leen sant ci seen taxawaay bi nga xam nañ ko ci liggéey bi ñu ngi sant it sëñ Fallou Fall moom sëñ Abdou Yacine ndax moom it am na ci taxawaay bu rafet boo xam ne taxaw na ko fa at mu ne suñ ñëwee moo ñuy teeru ànd nañu liggéey bi ba mu ñeex ñi ngi koy sant bu baax a baax ci taxawaayam boobu ci noonu ñu ngi sant it euh, euh, waa kër Serigne Sidi muy njabootu boppam gi ku mel ne Serigne Abo moom Serigne Sidi mi ci mag ak sëñ Abo mi ci topp ak sëñ sëñ Saaliwu ñoom ñëpp seen taxawaay rafet na ku mel ne soxna Faati Sidi moom it koy sant bu baax di ko beral jant gis nañ taxawaay bi nga xam ne am na ko ci. ñu ngi santit sëñ euh, maam xari Mbàkke soxna maam xari Mbàkke moom sëñ Murtala moom it yónnee na fa teew na fa euh, liggéeyam euh, taxawaayam rafet na ci liggéey bi ñu ngi koy sant bu baax moom it ci ci ci ci liggéey bi ñu ngi sant bu baax mboolem ñoo xam ne ñëw na maanaam kàddu cant ngërëm la hmm. ci noonu it du fàtte it waa yëpp ndax ñëw nañ ñoom it def seen délégation taxawaat nañ fa taxaw bu rafet ñu ngi leen di sant ñoom bu baax a baax ñu ngi leen sant bu baax ci njiitul sëñ jiile ci noonu ñi maanaam li ma wax léegi mooy euh, kàddu cant ak ngërëm la rek xam na ne moom euh, yëg ngeen ko euh, taxawu ngeen ko jàppale ngeen ko ci ci ci liggéey bi ndax fi ni bu ngeen ñëwutoon it bu fa doon nekk benn moom ak njaboot tamit dana ko def ba liggéey ba jeex waaye ñi ngeen ñëwee ànd koog moom mi ngi leen ci sant bu baax ci taxawaay bi mu ngi xamal ne it amut seen fay mais maanaam da leen di bàyyi Serigne Touba daal. ñu ngi ñaan yàlla ci kattu ci daraje yonante bi barkeb Sëriñ Tuubaa ak Seex Abdu Lahat kenn ko ci nekk li nga xam ne nii mooy sa taxawaay ci ren bu ne yàlla nga man lu ko ëpp ba mën a taxaw liggéey bi yëpp mu ngi leen koy ñaanal mi ngi sant it mbooleem euh, organe de presse ya fa teewoon bàyyiwuñ kenn ngi sant ñëpp ci njiital sëñ euh, sëñ Fallou Galas ak mboolem ñi ñu àndaloon ci liggéey yëpp ñu ngi leen di sant mi ngi sant taalibe yi di sant njaboot gi di sant mbokk yi ndax nit ki moom bu fekkee da woote say mbokk ñëw euh, say say say say taalibe ñëw jàmbur yoonu murid bi yëpp wuy si la loolu ku ko ku ko yàlla jagleel war ngaa sa da ngay sant moo tax mi ngi sant ñëpp di leen gërëm lu ci matut rek ngeen xam ne ci man la man xëy na wax gi moo xaw kii rek waaye moom ak jotalam ak yéeneem ëpp la lii lépp ku ci déggut sa tur nga xam ne ma xëy na mbirum doomu aadama la waaye daal amoon na yéene ku ci nekkit dana ñëw ba sa kër fekk la fa nga nekk mu saafante yow xamal la ne yëg nga ko moom it yëg na la bu baax mi ngi leen di ñaanal yéen ñëpp ci barkeb Sëñ laat Lahat yàgg koo teewee moom ñi ngi koy sant di ko ñaanal bu baax mu yàgg koo jiite yàgg koo taxaw ñu ànd yàgg koo ànd ak moom te saa bu ne mu gën koo man ànd ko bu wér barkeb Sëñ Abdu laat asalaamaaleykum wa rahmatullah